أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من النار doomu nday mbokk jullit ñi ñu ngi sant suñu borom ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu julli mu mu dolli si moom xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam sunaam bés pénc ñu ngi leen di ndokkeel di ndokkeel suñu bopp ci bés bu màgg wala bés yu màgg yu ñu xam ne ci la ñu nekk di ñaan yàlla yàlla nangul ñu nangul leen taqabbalullahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi xayr doomu nday mbokk jullit ñi lii ñuy dund ci suñu dund ak période bii ñu nekk amul période bu gën ci suñu dund période yi ñu nekk amul période bu gën ci suñu dund période bii nga xamante ni ñu nekk nii weer bi feeñoon na depuis ñu amoon fukki fan yoo xam ne yàlla dafa giiñoon ci li nga xam ne mooy fukki fan yooyu muy fukki fan yoo xamante ne nit ki bu la yàlla xéewalalee ba nga fekkee ko xéewal na la loo xamante ne mënoo ko imaginer ci sa dund yàlla may ñu fekkee ko ba jeexal li nga xam ne mooy fukki fan yooyu dañ koy sant ndax yàlla moom moo ñu ne sant leen ma ma dollil leen kon ñu ngi koy sant ci li mu ñu may ñu fekkee li nga xam ne mooy fukki fan yooyu dafay baax nag nit ki su jógee ci liggéey mu def li nga xam ne moom la ñu tuddee récapital récapitulatif mooy mu delluwaat ci xool li mu liggéey lan la ci jànga ay yan jàngat la ci tiire ci loo xamante ne ci lu mu taxawoon la nekk ci yàlla santoon ko ko mu gën a góorgóorlu taxaw ci loolu ak ay erreur yoo xam ne def na ko ci mu mun koo moytandiku taxawaay boobu la ñuy am tey incha allah si xutba bi doomu ndeyu mbokk jullit ñi yàlla ku màgg la moom mooy buur mooy boroom moom la ñu war a jaam waruñu ko bokkaale kenn tey boo xoolee histoire bi demee ci fukki fan yii yëpp ñun liñ ci am fii Sénégal moom la ñu gis ne moom mooy rendi li nga xam ne moom mooy xaru tabaski waaye bëri na ay xeetu jaamu yàlla yu am ci biir fukki fan yooyu rawatina bi aj bi tàmbalee nga xam ne juróom-ñetti fan jot na huitième jour bi aj bi tàmbali rit yooyu ñuy def yépp dafa nekk rit yoo xam ne dafa am ci ku mu cosaanoo muy suñu maam Ibrahim muy jàmbaar boo xam ne ci jàmbaaru yàlla yi la bokk subhaanahu wa taala yàlla tànn ko ci ni mu tànnee jàmbaar yi mu bokk ci ulul azmi min minar rusul bokk ci juróom yi nga xamante ne boo ko tànnee ak yonent yàlla yi ni ñu bëree lool waaye boo sélectionné yi moom day bokk ci li nga xam ne mooy juróom yooyu waaye mu am grade boo xam ne sax mooy képp kuy woote wéetal borom bi subhanahu wa taala moom mooy sa imam yamul ci mooy sa imam ñi ñuy wéetal yàlla waaye nit ñëpp ibrahim mooy seen imam ndax lan yàlla daf koo jox ay épreuve mu réussir li nga xam ne mooy épreuve yooyu jamono bi mu ko réussir yàlla ci la ko ne inni jaaluka linnaasi imama yow ibrahim def naa la nga nekk ci nit ñëpp seen imam si nit ñëpp nag yonent yàlla muhammad mu ngi ci biir donte nag bu ñu tegee ay grade yonent yàlla muhammad moo ko sut ay grade waaye yàlla ibrahim yonent yàlla muhammad ibrahim maanaam kan la kan la yàlla royloo yonent yàlla muhammad yonent yàlla ibrahim la ko royloo moo tax même boo jàngee salaatul ib boo bi ñu ñëwee ne yoon saa salaam ñun de xam nañu yàlla nu muy jullee ci yow xam nañu malaaka yi nu muy jullee ci yow parce que yàlla moo wax ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi leer na xam nañu yàlla nan lay jullee ci yonent bi mooy jéggal na ko ay bàkkaaram yu mu def ak yu mu defagul leer nañu malaaka yi nan la ñuy jullee ci yonent bi mooy dañuy ñaan dañuy ñaanal yonent bi yërmande ak njéggal saxaaba yi daaw ñu tëb rek di fental seen bopp ci diine wala ñuy defal seen bopp ginnaaw aayaroot na rek yàlla ne yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ah ñu ne kon na question am na bi yee moom leer nañu waaye ñun nan la ñuy jullee ci moom leeruñu nañ dem ci moom moom mi yàlla yónni mu wax ñu nan la ñuy jullee ci moom bi ñu ñëwee mu jàngaleen li nga xam ne mooy salaatul ibrahimiya allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin nag xam majid tey yaa ngi julli si yonent bi waaye yaa ngi ñaanal barke waaye nga naan sax kama comme yàlla ni nga jullee woon ci ibrahim comme yàlla ni nga barkelee woon ki nga xam ne mooy ibrahim ci kan ngay julli ci yonent bi waaye exemple bi yaa ngi koy jëlee ci ibrahim kooku mooy jàmbaaru faq dënn te li ko li ko may loolu yépp ci benn mbir rek la taxaw mooy fexe wéetal boroomam bañ ko bokkaale ak dara mu ngi nekkoon ci moment boo xam ne papam moo doon defar xërëm yi ñuy yi ñuy bokkaale papam moo ko doon tabax nekkoon ci buur boo xamante ne ñun firaaw na la ñu gën a miin mais ibrahim ku mu tombeloon moo gën a moo gën a garaaw ndax moom namrud la la tombeloon nekkoon bandi ci biir buur yi waaye ak li muy bandi bandi bandi bandi bandi ak peuple lu ñu ànd ak moom nga xam ne ñëpp dañoo ànd ak moom ci banditisme boobu noonu moom mu dem ba xeeb sax li mu doon ne léegi moom yàlla la moom namrud waaye ibrahima seppeeku ci loolu dem jàkkaarloo ki nga xam ne mooy papam mi defar yàlla yi ne ko bàyyil yàlla yi ngay defar bés ni ki tey jii man weddi naa li ngeen nekk te musuma ci sax nekk parce que Ibrahima donte wéetoon na ci dëkk bi mais xamoon na yonent yàlla nuux jiitu na ko te ci tawhid la nekkoon mu topp ci secte yonent yàlla nuux kon lii mbir la boo xam ne war nañ ko xam ñu xam lan moo tax Ibrahima daal di am li nga xam ne mooy martaba bi looyu loolu doyu ko mu taxaw ne léegi sax man damay gëstul sama bopp kan mooy sama borom bi ma war a jaam fi muy demee ba mu yàgg toog guddi gi jege si mu teen gis asamaane gis biddéew yu bëri mu ne dama matul lii de moo ñii dañooy sama borom ñu dem ba mu yàgg étoile yi daal di dem mu ne déedéet borom bi ma bind warul dem moom daf fi war a nekk parce que ki yor sama bakken bii nga xamante ne xefa xippi bu ma bàyyi woon tekkiwu ma dara yàlla asamaan si ñu tiim nii nga xam ne bu ko bu ko bu xefa xippi bu ko bàyyi woon rek àdduna bi tukki mu ne lii mënul nekk biddéew yi ñu dem ba mu yàgg weer bi ñëw ak rafetaayam ndax weer dafa rafet mu ne haada rabbi ah sama borom dee ngi nii ñu dem ba mu yàgg fa àll fa la maa afala mu dem comme ni biddéew yi demee mu ne lii mënut a nekk sama borom daf fi war a nekk kuy dem mënul nekk sama borom ñu toog ba mu yàgg jant bi ñëw xëy xam nga jant moom day leer màgg mu ne haada akbar bii de moo gën a màgg yi fi jóge kon bii nag mooy sam borom waaye bi jant soowee fa la maa afala moom tam mu daal di dem mu xool ba xool xam ne yii di ñëw ak a dem yii mun nekk sam borom mais am na lu leen di indi dem mu ne kon li nekk ci ginnaaw di leen indi dem loolu mooy sama borom te mooy yàlla kon découvrir na boppam yàlla te kenn waaru mu xam ne kooku mooy ki mérito ñu jaamu ko te duñ ko bokkaale kenn mu taxaw ci loolu ak épreuve yu mu am yépp dem na ba attaqué li nga xam ne mooy xërëm yi nga xam ne ne ñu ngi ko tabaxoon di ko jaamu rajaxe lépp bàyyi benn xërëm bi ñu newoon mooy xërëm bu mag bi boobu mu ngi leen bëggoon jàngal dem na ba nga xamante ne bu ko papam ne dama jaayee sax bu génne danaan ay kan mooy jënd loo xamante ne du ko jëriñ te te mënu koo lor mu dem sax ba nit ñi set loolu ñëw ci bàyyi ji ne ko kii kat mu ngi mu ngi yàq suñu suñu yàlla yi parce que boo ko santee jaay sax jaayatul léegi nu mu war a jaayee mu dëgër ci loolu dem ba bi mu defee nag li nga xam ne mooy lu rëy rëy yàq li nga xam ne mooy xërëm yépp buur bi convoqué ko ndax yaa rey lii mu ne ko ya ndax yaa yàqate lii mu ne ko yàqatewuma comme da ngeen naan ñii seen yàlla lañu bu mag bee ngi nii laaj leen ko ndax moom parce que moom mu ngi fóon war na xam li xew buur bi ne ko dag ñuy fontoo kii lii lan la mën a waxee lii nag estati taxaw nit ñu koy laaj Ibrahim bu ñu fontoo kat nag mu leen kon nag loo xamante ne mënul wax ak yéen su ngeen ko diisee seen soxla mënul leen tontu waaye léegi ngeen koy jaam wax ji nekk nag nag indi foofu polémique ci la buur bi ne kii faw ñu sàkkal ko pexe pexe bi mooy lan mooy taal matt bu xam ne bu ko picc romboon ci kaw day wadd ci biir safara bi tàng jër ñu ne nañ ko sànni ci li nga xam ne mooy biir safara bi biñ koy sànni safara bi sax tàngaay safara bi sax tax na mënuñu koo jàpp dem yóbbu ko sànni ko safara bi dañ ko defal seen genre lance bomb yooyu nga xam ne boo ko dugalee moo koy lancé mu mu jógee fu mu dem dem tàbbi si fi nga xam ne mooy safara bi waaye ci diggante lance boobu noonu dañ fay jàng lu rëy tamit mooy que ne Ibrahim jamono boobu. Jibril ñëw na di wax ak moom ci diggante bi ñu ko lancé mu war a dem dugg ci safara bi nga xam ne loolu ay seconde la bi Jibril jikkee ne ko lan ngay xaar ci man na xaaroo ñu dimbali la lu mu ko njëkk wax pour wane tawhid wéetal borom bi daf ko ne bu dimbal bi jugee ci yow soxlawu ma maanaam bu fekkee yow rek yaa gis ne ñu ngi may sànni nii nga yërëm ma ñëw pour def intervention soxlawu ma loolu waaye bu duggee sama borom nag boobu soxla naa allahu akbar kon loolu mooy lan mooy ñun bu ñu ut dimbal nañ ko ut ci borom bi amul ku ñu mën a dimbali ku dul borom bi subhanahu wa taala crise yu métti yi ñu dund nii yëpp kenn moo ñu si mën a génnee mooy borom bi subhanahu wa taala kon bu ñuy dimbalu bu ñuy wakkirlu dañu dimbalu ci moom te pourtant ñu ngi koy wax saa bu ñuy julli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in chaque jour ñu ngi koy wax kon nit ki buy jaamu buy wakkirlu buy ut ndimbal na ko ut si borom subhanahu wa taala boobu la yàlla daal di wàccee aaya yaa naaru kunu bardan bu yemoon foofu sax dina xaw a neex waaye mu teg ci wa salaaman ngir kan ala ibrahim donc moo tax yenn borom mu fassiru ni borom xam-xam yi nee nañu aaya boobu min li yàlla bind daf koo dégg ba nga xam ne lépp loo xam ne laxasu woon na ci ibrahim te bokkul ci moom safara bi da koo lakk moo xam buum yi ñu ko takkoon moo xam laxasaay yu ñu ko laxasaayoon yooyu yëpp dafa lakk ba mu des ibrahim la dox lan yàlla daf ko ne kunu bardan wasalaaman alaakan ibrahim donc kon bi mu duggee safara bi lépp a lakk ba mu des moom ñun ñëpp xam nañu histoire boobu nu mu jeexee ba Namrud fan la mujjee li nga xam ne moom mooy ibrahim ab weñ moo ko rey wala ab yoo moo ko rey dugg ci li nga xam ne mooy noppam tànqal ko lëjal ko lool ba mu jël bopp bi mbëkkal boppam xaru kon lu néew maanaam benn ci jaamu yàlla yi moo ko rey te lu gën a néew doole ci jaamu yàlla yi kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu suñu maam Ibrahim taxawaay boobu mu taxaw moo waral tey ñun ñuy dund di fàttaliku lii nii ci fukki fan yi tey ñu dem màkk dinañu sànni jamra ñu dem màkk dinañ dem dinañ daw safa marwa ñu dem màkk dinañ tawaaf yooyu yëpp xeet ñuy def yàlla ñu ngi ko mu ngi ko jëlee ci Ibrahim ak famille Ibrahim yàlla ñu yàlla may dégg ak toog yàlla ñu yàlla xiir ci boppam incha allah bu ñu toogee jugaat ci même orbite bi la ñu continuer jàngat li nga xamante ne ni ci la ñu jugee ñu gën koo jàpp waaye tamit buñ ci jugee ñu xam fan la ñu war a gën a tegaat suñu tànk fi nga xam ne rëcc nañu ñu ñaan yàlla may ñu gudd fan ba ñu fekkee waat rectifier loolu lu nga xamante ne mooy le tiir waaye tamit li ñu rëcc muy ay erreur tam ñu ñaan yàlla mu jéggal ñu ko aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين doomu nday mbokk jullit ñi yàlla ñu yàlla nangul suñu jaamu yàlla yàlla ñu yàlla royloo ki nga xamante ne mooy suñu maam Ibrahim ci li nga xam ne moom mooy tawhid wéetal yàlla te bañ ko bokkaale kenn doomu nday mbokk jullit ñi ajjana ñun ñëpp moom la ñuy ñaan wallahi xasim ku mu wóoroon ne léegi-léegi boo deewee ajjana nga jëm da ngay bëgg dee suñu ragal dee yëpp mooy dañoo xamul fan lañ jëm ñun ñëpp xam nañ ne dañ fiy jógee niñ fi ñëwee ndee par benn benn noonu la ñuy delluwaatee par benn benn kenn mënu koo weddi ku ne ci ñun am nga ku la jege ko xamante ne yaa ngi doon defanteeg moom lu nekk yaa ko gas dugal ko si biir suuf dem yeggale say soxla kon sa bosa ngi ñëw li ñuy tax ñu ragal a dem nag mooy fan lañ jëm àjjana boobu nga xam ne moom la ñu bëgg nag lenn dong moo koy garanti nit ki mooy mu wéetal yàlla bañ ko bokkaale kenn nit ki bés bu juumee ba bokkaale yàlla ñàkk tawhid dugg àjjana yonent bi moom moo gën ci nit ñi yàlla moom la joxoñ te bi muy wax ak moom mënoon na ko ne réew yonent bi bés boo bokkaalee ñàkk say jëf wax bi day leer ki wax kan la yàlla la du waxantu mais daf ko jiitalee wax ji waat daf ko ne la la wax waat laam boobu laamu waat la la in ashrakta la yaxbatanna amaluka bés boo juumee yow yoon saa salaam waat naa ne nga ba bokkaale ma sa jëf yi nga jëfoon yëpp ñàkk nga ko te da ngay bokk suñu perte sa yowmal xeyam ni perte mooy ñi dem sawara nit ki bu fekkente ne yenn bàkkaar yi lay def duñ ko xeeb nag ndax bàkkaar kenn du ko xeeb bokk na ci xeeb bàkkaar mooy bàkkaar bu rëy la nit ki saa bu xeebee bàkkaar donte bàkkaar bu ndaw la mais mu xeeb ko rek di ko def bàkkaar bi day mujjee nekk bàkkaar bu rëy si moom kon kenn du xeeb bàkkaar waaye bàkkaar yooyu noonu nag nit ki bu ci nekkee di ko def te bokkaalewul yàlla xëy na bu demee àllaaxira yàlla danaan xaaral ma dugal ko safara ngir lakk ay ñaawteefam mais day génn safara dafa sax nii sax safara yàlla wax nañu ko inna lazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi naari jahannama xaalidina fiha abadan ñoom bu ñu duggee doot ñu génn dañu leen di kaste biir safara mooy lan al kaafir ñu weddi wal mushrikuun mooy bokkaalekat yi ahlul kitab mooy ñu baal ñu ci terme bi nasaraani ak yahuud yi ñu fetteeru lu nga xam bi yonent yàlla muhammad ñëwee dañ koo bañal topp ñu ko ñooñu yàlla wax na ci alquran bu ñu deewee bu ñu duggee safara duñ génn waaye ku dul ñoom bàkkaar yi mun na bëri yàlla ñëw xool la ni mu la doon suturaale ci bàkkaar am na koo xam ne ndeysaan njaalo rek la doon def waaye kenn mus koo jàpp mu ñëw ba yowal xiyam jàkkaarloog borom bi fekk ku xamoon borom bi la nag wéetal ko mais doomu aadama la da doon def bàkkaar yàlla testé ko ci bàkkaar yi ba mu leer ba mu reconnaître ne moom moo ko def yàlla ne ko ah léegi nag mu ne ko ah jaam laa woon bu doon bàkkaar rek de te xam nga ne sama doye di moo tax ma doon bàkkaar yàlla lu mu koy tontu ni ma la suturaale woon ci àdduna ba kenn jàpp la tey noonu laa lay suturaalee doxal nga dem dugg biir àjjana parce que lan moo tax mooy wéetal yàlla moo nekkoon ci moom te bokkaalewul yàlla incha allah xutba yi ñëw dinañ jël xutba programme bi li nga xam ne mooy bokkaale ñu gën koo leeral ndax ñu mën koo moytu ndax bokkaale dafa sew yonent bi bokkaale bi mu gën a doon ragalloo saxaaba yi sax mooy bokkaale bi gën a ndaw buñ ko laajee mooy ban mu ne mooy ngistal nit ki di jëf di xaar nit ñi di ko sant wala di ko gërëm wala muy xaar leneen loo xamante ne du gërëm du gërëm borom bi subhanahu wa taala incha allah dañ préparé li nga xam ne moom mooy xutba boobu waaye li ñuy jàngat rek te mun see jàngat ci li nga xamante ne moom mooy ci événement yi ñu nekk mooy Ibrahim dafa amoon taxawaay boo xam ne taxawaay bu dëgër la moo tax tey ñu doon ay sunnaam moo tax yàlla bi mu waxee mbir mi ba mu jeex dafa ne ko lii kat ma baaxee naa la ko waaye du yem ci di la ko baaxee dañ koy continuer génération génération ba keroog àdduna di tukki tey loolu moo tax bu fukki fan yi ñëwee gis ñuy nekk ci biir di préparer dem aji rendi xar bi ñuy rendi yooyu yëpp nekk doon nañ ko leeral ci diiran bi nga xam ne mooy diiran fukki fan yi waaye xar boobu ngay rendi gis nañu histoire am moom ak doomam la woon Ismaïl mu nekkoon jàngatam boo xam ne war nañ ko fa def waajur bu yàlla géntuloo te yonante la te bu géntee la mu gént dëgg la daf koo war a appliquer waaye nekkul koo xamante ne dafay ñëw ne rek kii sama doom la naa ñëw rek appliquer wu si moom li ma yàlla sant waaye dafa nekkoon ku nangul yàlla yàlla tàggatal ko doomam bi tam ba doomam bi mun koo nangul moo tax bi mu ko joxee proposition bi doom bi def ko ne waaw defal li la yàlla sant soxnaan si aussi tam yàlla tàggatal ko xolam ak doom nu mu neexee nu mu saxee ci xol dem ba nekk waxamaane toll ni xale yi nii nga xam ne da nga koy xool bëgg ko commencé na am doole yàlla ne la ne la rayal sa doom bu doon suñu jigéenu tey yàlla ngeen jéggal ñu nag wala bu doon ñenn si suñu jigéenu tey yaakaar naa seen ndigg la ñuy takk tàccu seen jëkkër boo moytul gàddu seen doom génn kër gi dem waaye ñoom ñëpp dañ koo nangul dem pour mu def loolu mu dem ba di ko rendi yàlla xéewal ko li nga xam ne moom mooy gàtt bi bi mu rendi te gàtt boobu la ñuy rendi ba léegi nii suñu jamono doomu ndey mbokk jullit ñu ngi ci tabaski tey la ajjuma tey bokk na ci ayyaamu tashriq ñi amul woon tabaski depuis tey jii buñ ko amee dañ koy rendi suba lay jeex takbiir yi dañ koy wax ba suba bu jant bi soowee yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ne dañ ko war a def buñ ci nekkoon nañ ci gën a góorgóorlu depuis fukki fan yi tàmbali dañu waroon tàmbali allahu akbar kabira yi du jeex ba suba jant bi di soo bu fekkoon ne loolu génn suñu xel trop taaragul des na tey des na suba ba keroog jant bi soo nañuy tàmmal suñu làmmiñ allahu akbar kabira alhamdulilah kasira parce que mooy programme jamono bii ñu nekk waaye nag lenn loo xam ne mënuñu ko bañ a wax te foofu la ñuy jeexalee xutba bi dañu waxante dëgg ay jurit lañu benn yàlla la ñu am benn yonent la ñu am bu ñuy julli léegi ñun ñëpp ñoo bokk fi ñuy jàkkaar lool muy kaaba yàlla de moom moo bind diineem te moom la ñu war a jaamu moo ñu tànnal yonent bi ni ñu topp leen yamuñ sax dafa ne wa in tutiihu tahtadu ku ko topp rek daal di jub waaye ku ko fi bàyyi daal di sànk yàlla dañul dañu jàngal nan lañ koy jaamoo ba bàyyiwul misqaala zarra virgule yàlla bàyyiwul ci nan lañ ko war a jaamoo te li yàlla gën a bañ ci ñun te xaaru ko ci ñun mooy tàqaliko ñaata aaya ñoo ñëw ci alquran inna lazina farraqu diinahum wa kaanu chian lasta minhum fi shay beneen bi mu ne inna lazina farraqu diinahum wa kaanu chian kullu isbin bi ma ladayhim fariquun beneen bi mooy saar bi ñu jàng léegi wa ma tafarraqa allazina utul kitab illa min baadi ma jaatuhumul bayyina yàlla foofu muy wax si tàqalikoo mu ne tàqalikoo wuñu dañoo bàyyi ba mbiri leer suñu bopp yàlla leer suñu bopp ñu xam ne moom la ñu war a jaamu yonent bi leer suñu bopp ñu xam ne moom la ñu war a rey ñuy tàqalikoo si suñu biir wallahi ñaari julli ñetti julli ñeenti julli daf fi war a jeex julli nañu tàppe xol ñu ànd nekk benn rawatina ginnaaw bi mbir yi leeree xëy na koor um koor korité mun na indi problème seentu weer waaye tey ñun ñëpp mardi ànd nañu woor te ñun ñëpp leer nañu ne ci alquran neuvième jour mooy arafa ñëpp leer nañ neuf neuvième jour mooy wal watri yàlla da ko wat ci wal fajri wala yaalin ashr mu wat ci fukki fani wa shafi mooy dixième jour bi lu tax mu jiital ko parce que mooy jour bi gën wal watri mu indi arafa parce que mooy neuvième jour bi waaye yow léegi nga jàpp ne woor naa mardi bi mais jeudi laa war a julli mooy sa dixième jour kon yow huitième jour nga woor te huitième jour doo arafa am nañu xel suñu mbir entreprise yi ñuy ubbi suñu mbir àdduna yi duñu nang kenn nax ñu ci duñu nang kenn triandre ñu ci parce que mbiru àdduna la lu ñuy jàpp la mais suñu mbir àllaaxira tam buñu nang kenn yóbbaale ñu ci jullit gi li mu war a def daf ko war a wóor ilmal yaqin li mu war a def daf ko war a def ci xam-xam diine bi ñu nekk mooy diine islam de diine ilmul qabla al qawl wal amal diine la boo xam ne nit ki balaa mu ciy wax wala mu ciy jëf dafa war a am xam-xam ci loolu muy wax wala muy jëf lépp lu ñëw poser question ndax yàlla moo ko santaane poser question nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan defee nga defee ko noonu ci ngay mucc bés boo defee mbir ci jaamu yàlla te yonent bi defee ko nu mu ko defoo yàlla nee na foofu war a dama koy delloo te bu ñëwee àllaaxira dafay bokk ci ñu perte te ñun bu yéenante wu ñu perte àjjana la ñu yéenante am nañu benn repère ci julli tabaski muy arafa tey ku nekk am nga mbokk bu nekk màkka wala ku la jege ku nekk màkka nga xam ne leeral na la tey jii ñu ngi taxaw taxawaay arafat ba yow nga xëy ànd ak moom woor woor bi parce que taxawoo foofu ñoom rek ñu fa taxaw ñoom ñoo wóoru waa ngalawaay boo xëyee jàppale yaa ngi ci fukkeem fan amoo xar boo rendi compréhensible la da ngay rendi bés bis topp julli la da ngay reen waat bés bis topp man mii di wax ak yéen jeudi laa julli démb laa ji defee suñu gox bi lan moo tax fitna laa daw xaw a basé wu tuuti ci comme ki amul xar yàlla may na ko mu rey rey rey rey ba ñetteelu fan bi jeex ñu ngi si ñetteelu fan ñu def maslaa waaye nag teewul nañu leeral dëgg ànd nañu julli jeudi waaye teewul nañu wax dëgg gi dëggu yàlla gi nañ ko wax après nag li am yàlla mooy jubal ku dëgg ku dégg baax na ku déggul nga xam ne yow sa responsabilité dégagé nga ko waaye daal ku taxaw arafaat neuvième jour dixième jour julli la mercredi yàlla tax ta si yërmande ayaamu tashriq jeudi vendredi samedi muy tabaski ñeenti fan la yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla ñu yàlla xir ci boppam mbir bo- day toll foo xam ne il faut que nit ki jël responsabilité yonent yàlla Muhammad jamonoom ak saxaaba yi foofu wax yu doon wàcc erreur bu amaan Jibril day ñëw corriger ne du nii waaye moom bu xasee dem wax yu dootul ñëw amul correction fu ñuy refee rew rek mooy ci lim fi bàyyi moom amul woon ay commission yoo xam ne dañ koy saytu pour weer bi wala nangam déedéet dafa doyloo woon li ko yàlla wax mooy boo bu kenn ñëwee ne la gis naa doylul kooku nga bàyyi ko responsabilité bi mu ne la gis na ñu ñu nekk fii si jàkka ji di julli di jiitalante wóolante wuñu dafay nekk lu doy waar démb dama xaw am panique si jiite bi ma jiite ndax lan mooy que ne am na ñoo xam ne ñëw nañu ba kër ga desul dara lu une heure de temps mooy moo war dem pour ma dem jiite ji ñu ñëw kër ga def ay attaque lan moo waral attaque yi